batay ci sen scandale du jour wa géejawaay way naa leen da ngeen ko wax da ngeen gis ko xamantene day revue de presse day théâtre day wuy ko xamne wax lay def ngeen jox ko sen rew ah ngeen jox ko sen gox yalla baxna ñu seetaani vidéo bi ñu wat man est ce que xam ngeen wa géejawaay way way bi ñuy wayantoo fan yi man est-ce que xam ngeen waa Géejawaay way bi ñuy wayantoo fan yi mooy wayu Mbaye Ndiaye boobu ñu doon wax naan bàyyi leen ku ngeen gis di dug ci moom <laughs> bu beneen yoonatee doonte ñu dalaat Géejawaay foo tourné moom la ñuy way déglu leen ñoom niñ bëgg a def seen maire bi ñoom waa Géejawaay maa ngi defar samay bagage nag di waaj a tuxu Pire après dinaa leen wan suñ maire ñun waa Pire xool leen waa Géejawaay liñ nar a def seen maire bi autorité suñu surtout maire bi Ahmed Aïdara kooku barke maam Cheikh Rafal ñun waa Guédiawaye dañoo wut essence taal ko moom Ahmed Aïdara <laughs> déet déet déet bu leen taal bu leen taal léegi comme dañ leen doon fen ci Aline Sall ba Aline Sall gedd leen léegi seetaan leen Aline Sall ma won leen activité yu mu nekk xam naa gën ngeen koo gis xool leen ma wax leen ci lu Aline nekk. beneen secteur je suis dans le secteur de point département ci complexe scolaire bu que comme dans la banlieue dans la commune de Sangalkam euh, que j'ai mis en place en 2020 et un institut universitaire aussi bu que du du qui di former dans des métiers d'ingénieur en agronomie en statistique et euh, en génie civil et aussi en management public. da ngeen di jël Ahmed dara ngeen yóbbu ko ci école bi Aliou Sall nekk <laughs> mu ñu defal ko formation foofu ndax Aliou Sall dimbali ko Aliou Sall nee na ko woon xoo li ma tabax bu noo ko sax peinture te loolu mooy dëgg géej waay foo tourné nag loolu la ñuy way bu beneen yoonatee xam naa dootu leen dalaat leçon la nag pour deux mille vingt quatre bi ngeen xam bu baax li ngeen di def xool leen nag suñu maire ñun waa Pire ma woon leen suñu maire li ñu koy wayal ñun. Euh, monsieur le maire de Pir. bi maire ku ko am lo di wax. bi maire ku ko am lo di wax. bi maire saay. <laughs> bi maire ku ko am lo di wax bi maire saay. ma la wuy sax waye xam naa ne moom fecc sax di ngeen ko def fecc waa Géejawaay waxuma la wuy de waaye fecc sax di ngeen ko def ndax seen maire bi moom lenn la mën en tant que maire de Géejawaay en tant que maire de Guédiawaye maire de Guédiawaye kii ne travaille pas maire de Guédiawaye kii n'a pas de bilan maître maire géejawaay qui respecte pas les géejawaa xaw ma nuñ koy waxatee ñi dëkk géejawaay nañ leen di waxee maa ngi xaar ci commentaire ngeen wax ma ñi dëkk géejawaay nuñ leen di waxee respecté ñu dëkk géejawaay wax lay def yéen a xool kuy wax jox ko seen géejawaay mu ngi noonu woyu kese ngeen ci ngeen nekk woyagoo leen de yéen fecc sa di ngeen ko def dootoo leen ko defati kuy wax ngeen jox ak kuy woy ki théâtre yéen kay waxuma la yéen kay kàmbali ngeen woy bi mu ngi ñëw tëgg fecc ngeen di def ngay dara waxuma la fecc de waaye xam naa ni tootoo leen ko defati yéen a xool kuy wax ku mel ni man koo xam ne wax lay liggéey ngeen jël ko dénk ko seen géejawaay bëgg mu liggéey waaye kuy wax dina liggéey nee yàlla du fay kuy wax bàyyi kuy jëf yéen ngeen jël kuy wax jox ko seen seen gox yàlla baax na te fu mu naan en tant que maire de Guédiawaye waaye en tant que maire de Guédiawaye da nga liggéeyal waaw di liggéeyal waa Guédiawaye sonn nañ bu mu nekkee bu ñu mënoon virer dugg parcelle sagam parcelle seen maire bi mu ngi fële mooy moo leen tane jooy yi waa Géejawaay di jooy waa parcelle jooyuñu ko te waa parcelle seen maire bi mu ngi fële te ñoom jooyu ñu li waa parcelle di jooy de waa Géejawaay li ñuy jàmbat ay la sonn man ci waa Géejawaay.